xibaaru suba gi mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beeg télévision Futur Média juróom-ñetti waxtu du 8 heures jot léegi nii ñu door xibaar yi ak euh, coowal kii di euh, Massaly fi ma nga ca ko téyewaat gannaaw ba ko gendarmerie tuumaale ne ngi tukkee ci ba mu yëkkate ay kàddu ko ci Aminata Tall jàppam gu njëkk ba nu ko bàyyee itam euh, jëlaat nañu ko nee ñu yeneen kàddu la yëkkati yoo xam ne dañu ko jàppee diffamation lu ci mën a am daan ci dellusiwaat ak rédaction bu télé Futur Média si suñu yeneen jotaayu xibaar njàng ak njàngale di wéy di sooxe euh, CUSAMS benn euh, ci kuréelu jàngalekat yi nekk ci daara yu digg doom yi tey ji daañu amal seen toogaanu ñaxtu ca place de l'obélisque xam nga Pape Cheikh ni ki démb lañ ko bëggoon amal euh, ca ministère fonction publique waaye nag ki nga xamante ne si moom mooy préfet joxu leen woon autorisation boobu itam mbir la mu ñu nara topp ñu des ba tey ak ñoom seen jëwriñ di ministre de l'éducation moom wax na li mu wax nag Serigne Mbaye mooy daal jëm ci grève boobule waxtu wi doon woon waxtu wu gën ndax ñi ngi woon ci waxtaan woo xam ne bu nu ko wéyaloon amaana saafara mën naa indi ci jafe-jafe yi euh, loolee di euh, kàdduy euh, Serigne mbay cam mi ngi ko yëkkati nag ci lancement officiel fondation secteur privé euh, bi soxal wàllu njàng ak njàngale euh, ca daara ju kawe ja itam naka noonu grève am na ñetti fànn grève la jàngalekat yi door ñi bootu ci SAES e démb la ñu ko door ñoom it lu ñu bëgg nag nee ñu nguur gi mu daal di daal euh, sàmmonte ak li jëm ci protocole d'accord bi nga xam ne xaatim nañ ko ci atum 2011 ak it loi cadre boobu leen ñu teggi ko teg ko fële gis ñu ci seen bopp ba tax ñu taaloon ko mu Modou Diop Fatimata Ba dem nañ ci daara ju kawe ja ndongo yo ànd ak njàqare ñu teewlu lañ fa jële université Cheikh Anta bu ndakaaru ndongo yu néew di jaabante ñoom nag ñu bëri ci ñoom tey euh, defuñu cours. dañoo ñëw fii mais bon les les enseignants étaient en grève donc dañuy perdre suñu journée. c'est pas aussi intéressant nga jógee sa kër yow 6 heures du matin pour am place ci amphithéâtre yi ñëw ba yegg si toog ñu ne le prof n'est pas là. grève ñetti fan ñu door ko alxamis bi mot d'ordre bi waa SAES e di syndicat autonome des enseignants du supérieur ne topp nañ ko ndax fu bëri kenn jàngalewu fa. muy fag droit wala fag lettre wala faculté des sciences économiques et de gestion muy INSEPS muy ESEA foofu yëpp dem nañ fa tey si suba. li ñu gis moo di suñuy militant ñun SAES suivre nañu moo door bi. boobu boobule nag di wéyal xeex bi mu sumb ngir rekk nguur gi sàmmanteeg dige yi nga xamante ne defoon na ko ci atum 2011 waaye tam fexe ba du ñu jëfee loi cadre bi indi ay coppite ci université yi ci Sénégal. du loi cadre rek moo ñu tax a jóg loi cadre si la bokk loi d'orientation si la bokk euh, suñu protocole d'accord bi nga xam ni nguur gi si signé na ko depuis 2011 xaw ma fàtte ko ranger ko ci tiroir yi si euh, la bokk. étudiants yi ne am nañ lu leen metti lool ne bu ñu sañoon nag nguur gi ak jàngalekat yi ñu toog waxtaan. syndicats yi tamit dañoo war di xool intérêt étudiants yi quoi parce que aussi à chaque fois que su dara amee nga ñuy def grève bon suñ demee dañuy dem ba après étudiants yi la ñuy prendre en otage quoi donc mais aussi état bi moom it wan na jéem a def euh, en sorte que mu toog ak les acteurs. dañoo war a gisante ci pet. gisante yi toog waxtaan autour d'une table essayer de trouver un problème à ce problème de trouver une solution à ce problème drastique. SAES ñoom ne fa suñu benn yoon dellu ginnaaw ci seen xeex bi ndax dañu jàpp ne nguur gi sax da cee jéemul dara ndax ndaje sax bi nga xamante ne jàppoon nañ ko ci aljuma bi ministère bi da ko reporté ba beneen. Fatimata Ba ñu lay sant di la gërëm ñu wax ci euh, leneen di coow li dox fële euh, ca loterie nationale sénégalaise di LONASE ñu ne nag euh, weer wu jot diggante 2010 ba 2013 moom kër googee ñàkk na toll ci téeméeri million ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ñu ne koppar yooyee dañu ko doon luubal di ko rawale ca Liban ñoom nag ci mbuxum moomee joxañ nañ ci baaraamu tuuma kenn ku nekkoon seen njaatige jamono di bay laawan ci noonu dañu teewlu kenn ci liggéeykat ya Seydou Mboub lay wuyoo. moom sax mooy euh, secrétaire général bu collège bi ñu euh, bootu dañu koy teewlu maam Biram Diouf ak euh, Mohamed ak Mar Dieng demoon nañu ci seen janoo ak taskatu xibaar yi. journaliste daf ne pro substitut procureur au niveau de la cour de répression de l'enrichissement illicite à l'occasion d'un procès ci biir procès bi daf ne que benn société bu tudd trust loterie groupe dafa doon jël ci xaalis yoo xaalisu LONASE ci anam yu dëppiwul ak yoon lu toll ci téeméeri million ak ñaar fukk ak juróom-ñeent di ko verser ci société ci compte benn société bu nekk à l'étranger ñu ne nag loolu moom nit mënu ko seetaan ñu méngale loolu ak période yooyu noonu ak période yi nga xam ne difficulté yi travailleurs yi amoon nañ ay jafeñ-jafeñ ci seen wàllu payoor partenaires yi doon liggéey LONASE pour ñu feeñloon ay problème la parieurs yi sax pour nga gañoon doon ay problème parce que mënuñoo jox xale bu toll noonu di ko génne ci réew mi di ko verser si ñoo xam te xëy na sax ñu ngi liggéey loolu ah, mais liggéeyuñu ak lu toll noonu. la ñun fu nekk nii faw ñag ñu jóg xool nag lii lan la lan moo ko undu ñañ ñoo ci responsable ñu jël ko nag jébbal ko yoon pour ko yoon def ci liggéeyam képp koo xam te ne tax nga ci mbir moomu ñu teg la ci yoon. wax ci beneen xibaar doomu Sénégal yi nekk ca diwaanu Libi ñenn ci ñoom daañu leen indi fii ci Ndakaaru seen lim sax ñu ko xayma mu jege juróomi téeméer ñu ne roppalaan bu njëkk bi tey jii ci booru timis la ñu koy xaar ay doomu Sénégal yooye nekkoon foofee ca diwaanu euh, Libi kon dina ñëw fii ci Ndakaaru ñu wax ci beneen xibaar bu soxal askanu Sénégal rawatina ah, ñuy jaar ci passerelle ba nekk ca booru Cissés ah, mbir mi di ab xibaar mooy boobile passerelle ab camion moo ko mbëkk ba mu ko mbëkkee ba tey njàqare am ah, ci ñi nga xam ne ñoom ñoo fay jaar ndax léeg-léeg ñañu bu nu teggiwul wala sax ñu def seen i feem jéyee mën na faa am Cheikh Tidiane Dione Cheikh Laurent di ba mbir ma amee demoon nañu xool nu mu demee passerelle bi nekk ci diggante Cissesse ak Ouest Foire ni ki démb la ko benn camion remorque laal loolee daal di indi ab njàqare. chauffeur ki nga xam dafa yor otoom war na xam longue longue distance li ci kanamam war na mun a xam ne man oto bii ma yor ak lii ma yeb ci kaw est-ce que dina mën a jéggi pont bi da doo ñëw rek forcé pont bi dem euh, am benn camion moo fi jaaral dem def benn caterpillar euh, ci kaw caterpillar bi nga xam naa waa ji lu mu doon dawal sooraay sooraale ko bu baax. loolu moo tax mu laal affaire yi affaire yi débordé. kooku waruñu ko jox permis sax. yoo xam ne yéen dañuy yàpp te duñu suñu yàbbee duñu sooraale pont bi bi dafa xaw a gàtt ni instant fii nag lii di insécurité bi nekk na loo xam ne jot nañ ko fee nemmeeku ba tax ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon jaar ci passerelle bi jamono ji ab njàqare moo leen dikkal ñoom sax li ñuy sàkku moom mooy daal ñu indi ci ay pexe ñi nga xam ne nag ñoom ñooy piétons yi jamono ji ñu ngi jéggi tali bi te ñoom sax dañoo gis ne lu ni mel wóorul benn yoon. dañu interdire accès passerelle bi. gis naa ne bu ñu jàllee moom euh, day du yomb quoi alors il va falloir que bon autorités yi réagir tuuti parce que bon danger am na quoi. yaay di doog a ci oto yi dañ leen di obligé di baare pour nit ñi jéggi am na ñoo oto yoo xamante ne du ñu am temps tamit di may nit ñi te loolu danger la aussi. jéggi bi moom wóoru quoi kii moom moom moom wóoru quoi c'est pas prudent aussi. jamono ji nag lii di passerelle bi dañ ko baare ndéegum moo tax sax ñii nga xam ne ñoom ñooy piétons yi ci diggante oto yi ñuy jaar waaye nag ñoom li ñuy sàkku moom mooy daal ñu daal di indi saafara laata njombe di fa am. tey jii ñu xëy fii ci ndakaaru gis fii euh, lu doy waar muy poussière bu bëri poussière boobu sax ni ki démb la tàmbali ba tax na ñu bëri nag ci askan wi dañuy sàlloo ak karité wala sax mentalato di ko def ci bakkan yi Pape Cheikh ngir mën a bu baax ñu jeexale ak euh, tàggat yaram wakaam moom euh, am na ndamam lu njëkk ci saison bi gannaaw ba mu bañ ko dooree su ne wor moo ko dooroon ñaari bal ci benn wakaam moom moo am ngeen baal ma amul ndam sax dafa lajji euh, ginnaaw bi ko Sunéwo dooree euh, ñaari bal ci benn lool nag nekk lajjam gu njëkk moom sax euh, ñàkk na fauteuil leader am maanaam na mu jiitoo woon jiitoo tuni ñaari tali moom moo gagné stade mbuur Mbour ñetti bal ci dara moom nag fi mu ne nii mu ngi ci ñaareelu place classement bi Papa Cheikh Diak Younous Diatta ci ay leeral gannaaw ba mu toogee fukki bés ci Ligue 1 bi nërmeeluwul Wakam am na defetam bu njëkk ci saison bi Sunéwor moo ko dóor ñaari bal ci benn ci fukk ak benneelu journée bi Aba Talib Fall ne lu normal la. sooraale woon nañ ko loo xam ne sóoraale woon nañ ko parce que championnat nañu joué bu paree ay joueurs yu mag donc repoussé nañ ko loo xam ne repoussé nañ ko ba ba onzième journée la bon dañ koy nangu sante ko yàlla gën a liggéeyaat. naataangoowam bu Sunéwor di xamal ne Wakaam mënul woon toog championnat bi yëpp kenn du ko daan. loolu il fallait que mu am parce que bi kenn mënul kenn. waaw ñun tamit et eh, ñun ay outside leen outside leen mais eh, képp koo xam ne tamit xeeb nañu ah di nga xeeb sa musiba de parce que li ñu def nii mun nañ ko def keneen. ñaari tali mi nga xam ne ñetti bés a ngi nii gañewul woon ba mu teglee ñetti match nul moo dóor ñetti bal ci dara stade de Mbour Mamadou Niang Amadou Erasme Badiane ak Abdoulaye Ba ñoo dugal bitu équipe bu Grand Dakar bi Lamine Dieng di rafetlu dal bi joueur am wane ci match bi. waxoon naa leen que fii nee naa leen bés affaire yi ubbeekoo si kàttanu yàlla daañu gagné ay tey def nañ ko jeu bu baax jaaral nañu yoon bal bi nañ ñëwoon itam xaw nañu kontaan ci liñ développé ndax bii yëpp bii yoo xam ne amul benn werante la doon daal. attaquant ñaari tali bii di Mamadou Niang doon meilleur buteur championnat bi ak juróom benn but. mu ngi fixé wu objectif fu fukk ak juróom benn but. sama objectif kon euh, nu ma ko waxee rek mooy lu ma mën dugal dugal ko pour aider équipe bi mu gagné mën a jël champion du Sénégal quoi. pour que ñu jël meilleur buteur championnat Sénégal ren yaakaar naa di nga mën a dépasser seize à dix parce que man sama objectif mooy marqué seize buts mais focaliser wu ma si ay meilleur buteur quoi. Wakam. nara bàyyee bopp championnat bi jàmbaar mi daan géejawaay football club ñaari bal ci benn ñaari tali di yéeg ci ñaareelu place bi Pape Cheikh euh, Diack ñu lay sant di la gërëm Pape Cheikh. mu ngoog euh, xibaar yi xam naa ci kanam rek ñu dellu si waat incha allah. jërëjëf man mii maa kontaan ci yow xanaa ñu bàyyi la nga dellooti ca ginnaaw rek. Euh, ba 10 heures nga dellu si bu ko defee nga yaatal mbaa nga mbaa nga taxar ñi xibaar yi ci français lay doon ñuy gërëm rédaction bi yëpp ak seen taxawaay fii nag l' information se réveille très tôt ci télévision Futur Média ñoo ko waxoon ñaari ñu boole xam ngeen ko utile la ak agréable.